da ngay takk ne kon ndegam yaa ngi ci yoon wi dem tisbaar jot na li nga am yéene nag mooy gannaaw takkusaan suuf moom da nga wàcc kon yoon da lay may nga yéexe tisbaar yéexe takkusaan ba wàcc ci gannaaw takkusaani suuf daal leen di julli ñoom ñaar ñëpp nga xam ne kon ku ci ne danga koo julli ci daroor yi loolu tukki bi moo tax ñu yombalal la ko sañ nga ko bu doon timis ak gee it timis jot fekk la nga nekk ci yoon wi waaye am nga yéene ko def guddi gi ñetti xaaj su benn ba jàllee digganteem ak fajar ca ngay wàcc loola mooy daroor yu gee ca nga nar a wàcc kon dañ lay may nga yéexee timis yéexe gee nga xam ne amu ci kenn koo julli ci muxtaaram da ngay dem rek ba wàcc ci waxtu woowee nga wax door leen julli ñoom ñaar ñëpp ñoom ñëpp kon ci daroor yi nga leen julli bi ci des nag moom mooy tisbaar jot nga nekk ci yoon wi te doogu ci ne bala maa wàcc daal moom jant bi day so ba noppi ma door a wàcc mbaa boog timis jot nga nekk ci yoon wi te li nga programme mooy fajar day fenk ba noppi nga door a wàcc loolu lañu waxoon ne boo ko defee doo julli genn julli ci waxtoo ko yàlla rëddal du ca muxtaaram du ca daroor yoom loolu kenn du la ko may dangay def rekk lañ la waxoon boole booleeg melo mooy tisbaar mi jot na mën ngaa dem soo yoon rek bañ a wàcc ba waxtoom ji bëgg a jeex maanaam muxtaaram ji bëgg a jeex nga daal di wàcc julli ko boo sërmalee takkusaan jot nga far ko ci sësale nga xam ne kon da nga leen sësale ci julli gi waaye ku ca ne ma nga ci waxtoom bu dee timis ak gee it timis jot na mën ngaa bañ a wàcc dem rek ba gee di bëgg a jot nga daal di wàcc julli timis boo neppee gee jot nga daal ko ci sësale wala mooy booleeg melo moo tax gannaaw ba mu ne wa fil hisha ay ni fa fassil ma mada mu teg ci xurubuha soxu jant ba mislu sawaali day doon kem ak rëccëm wa shafaqu shafaq mislu sfiraarin kem gelug suuf wal xurubu soga kal falaqi mel ne fenkuk fajar foofu nag moom daa jëlër bi baat yi daa war a nekk wal falaqu fenkuk fajar kal xurubi mel ne soga xam nga moom ci wax yi nam dafa teqale woon rekk tisbaar ak takkusaan noo leen di boole gannaaw ba mu teg ci ne timis ak gee itam lee ma waxan ci tisbaar takkusaan rek ngay baamuwaat waxaat ko ñoo bokk àtte mu ne la yooyu jamono nag kon ndegam ba mu dee tisbaar takkusaan daa waxan njëlbeenu tisbaar ne kon buy timis ak gee da ngay wax njëlbeenu timis ba tey ba mu dee tisbaar takkusaan daan tudd nar a wàcc ci njëkk takkusaani suuf ak nar a wàcc ci gannaaw takkusaani suuf fii nag mu nekkoon da ngay wax bu dee timis ak gee soo naree wàcc ci xaaj bu njëkk bi ci guddi gi ci boo defoon guddi gi ñetti xaaj ak boo naree wàcc ci gannaaw bu xaaj boobu jàllee nga xam lee mu ne washafaqu mislu sfiraarin jooju moom mën na laa gëlëmal mën na laa jaaxal ndax ashafaqu day firi shafaq maanaam xong-xong yi des ci sowu bi gannaaw bu jant bi sowee te ñu wax ne bu raafee timis jeex na maanaam muxtaaram jeex na gee tàmbalee fa wala moo tudd shafaq fekk fi mu toll ashafaqu ji moom da ciy jublu ba'da at-tulus al awwal minal layli ba ba muy tisbaar takkusaan tam da nga daan tudd soxog jant bi ndax fala seen ñaari waxtu yépp yemoon ñoom ñaar tisbaar ak takkusaan kon nag bu dee timis ak gee da ngay tudd fenkuk fajar ndax fenkuk fajar fala seen ñaari waxtu yem ñoom ñaar muy timis ak gee foofu la seen yaar waxtu yépp jeexi tàkk-tàkk kon nga seetlu ne way woowu am na yaar yu mën a gëlëmale li mu ne washafaqu mislus firaarin ak lim ne wal xurubu kal falaq waaye boo déggee niñ ko teqalee xëy na nga ko mën a jàpp bu baax a baax a shafaqu dafa taxaw taxawaayu ma baada at tulusi al awali min al leyli wal xurubu kal falaq dafa jëllër bi daal di waroon a wax wal falaqu kal xurubi daal di ne wal xurubu kal falaqi loolu nag daañu ko faral di waxee ci seen waxin yooyu le wa arqasu yoola mal nañu fil jam'i ca boole ga laylatal matari ci guddik taw ba bihi ci jàkka bihi da ko delloo ci bu dee ci jàkka katinin niki ban ma zalamin ànd ak ak lëndëm moo takkirin gi aji tor daañu maye ñu boole timis ak gee waaye nag ci jàkka dong lañ koy mayee duñ ko mayee ci biir kër ya wala ci ay bitik ca marché ba ci jàkka rekk lañuy mayee bu timis jotee te asamaan si taw nga xam ne ñibbi del siwaat julli gee day xaw a sonle daañu mayee ñu far boole julliyaar yépp buy sëmbalee timis teg ci gee fa saasay saasa daldi ñibbi benn yoon wala boog nga xam ni sax nekkul taw waaye ni asamaan si mel moom su ko masaa mel daana taw kon mën naam muy taw dëgg-dëgg mën naam itam ni asamaan si mel ñu séentu ne dana taw daañu maye kon buñ sëmbalee timis teg ci gee fa saasay saasa bu fekkee ne itam tawut séentuwuñ taw waaye daa tawoon ba sewet yoon wi ñu aw jëm si ci jàkka ji lëndëm ba noppi def ban boo xam ne néexut a dox lëndëm gi day aajoo muy lëndëm këriis te mooy ñu toll ca mujj ku weer wa ci guddi lëndëm yooyu dañuy sart muy lëndëmu bu mel noonu lëndëmuk mujj weer bu yaar yooyu tasee ñu toll ci lëndëmuk mujjug weer dañu aw jëm ci jàkka ja def ban bu naqaree dox ba tey daañu maye kon ñu boole timis ak gee jul timis teg ca gee fa saasay saasa daldi ñibbi tàyyee dem di dellu si nde bu doon lëndëmu kese nde ban amut mbaa muy banub kese nde lëndëm amut kenn du sañ a boole timis ak gee li ñu koy defee nag mooy axir na nga yeexe xalilan tuuti magariban timis bax da nidaa ci gannaaw nodd ga wa sallihaa te nga julli ko wa jaddidan te nga yeesal lil hishaay ñeel gee adaanaha noddam nga tuma tusallaa topp def na ku julli moom gee mën na it suma tusal lii topp da nga ko julli bi nasaxi ci ak toftale wa dahab demal nag wa axirta nga yeexe witraha witaram wa baada shafaqi ci gannaaw shafaq ni ñuy boolee timis ak gee mooy bu timis jotee dañ koy noddal nañ ko baaxoo noddalee nga xam ne dañ koy xumbal fekkee rajo lañ daan nodde ba tey ci rajo ba lañuy nodde xumbal ko nañ ko daa xumbali daal moom noddu timis bu noddee ba noppi xaar as ndiir daldi taxawal timis te bu ñuy taxawal timis nañ am yéene yi kat dañ koy booleeg gee bi sës ci moom faaw day aajowoo ñi yéene boole gi bu noppee timis daañu noddal gee waaye nodd ga dañ koy suufeel buñ daa nodd ci rajo dañuy bàyyi rajo ba buñ daal yëkkati ca kaw it day dugg ci biir jàkka ja nodd rek nodd goo xam ne du xumb waa jàkk ci rek ñoo koy dégg muy noddu gee ñu daal cay teg nag gee dañuy bañ bi ñu yëkkati noddu gee gi ku julli woon timis xëy na defe ne dañoo jiw woon ci nodd gu jëkk ga timis jotutoon mbaa mu defe ne gee daa jot xaat te fekk ne gee jotut dañ koy bool timis rek moo tax noddu gee gi ñu koy woyefal bu dee rajo ñu bàyyi rajo ba kon noppi nañ timis daal cay teg gee noonu ñu sisaloo nag ñi daal di mën a ñibbi seeni kër loolu ak jàpp ndal la ndax dem gi dellu si coono lay doon waaye nag bu kenn defagun wetar wetar moom bala ñu ko mën a def dañuy bàyyi ba muxtaarum gee jot maanaam balaa kenn mën a julli wetar moom day bàyyi ba waxtu gee jot dëgg-dëgg mooy bu shafaq fàddoo xonqoo ngi desoon fi jant bi sooyee bu raafee gee jot na boobu la ñuy door a sañ a wetar julli gañ ko julli woon sësale ko ci timis ak jàppandal rek la woon dañ daal di gaaw rek ñibbi seeni kër bàyyi nag ba gee jot dëgg-dëgg ñu door a def safa wetar bala loo génn nag kon mbiri julli nu fàttalee ne julli jumaa moom kenn du ko tolloole waaw rek nga dem ba ci jumaa ja soo may dugg ca biir nga dugg ca biir su biir bi xatee rek ba sàpp yi génn ci bitti man ngaa tollale ca sàppe ya lum sori sori rek baax na dañuy bañ nga defee ne boo demoon di julli jumaa ci yoon yi nga yëg ne ñu ngi ci ràkkab ñaareel te boo demee ba àgg na la raw nga defee ne mën ngaa jàdd rek ci bërëb dal di kàbbar bokk ci ràkkab ñaareel ba bi sëmalee nga fay bu jëkk déedéet faaw rek da ngay dem wuti jumaa ja soo àggee nag ba dugg ca biir mbaa boog fa sàppe yam ci bitti nga door a kàbbar boo fekkee ràkkab ñaareel ba baax na daal di fay ràkkab bu jëkk ba bu fekkee fekki woo ràkkab ñaareel ba nag maanaam jàppoo ca woom ya bu dëgër ba ilimaan di jàpp ca woom ya man nga ànd ak moom nag ba mu sëlmal ndax ñaan ya muy ñaan nga bokkaale ca bu sëlmalee nag nga jóg liqaam liqaam bu yees daal julli tisbaar ndax ndegam fekkee woo jàpp ci wóomee ci ràkkab ñaareel ba rek amoo dara ci jullik jumaa ga te julli jumaa kenn du ko kenn kennoo baabul muxtadari lii mooy buntub ku ñu teewal ab dig wa tajhiisihi akuk waajalam daa bëgg a mujje nag lu aju ci kuy bëgg a génn àdduna lañ koy defal ak gannaaw bu génnee àdduna lañ koy defal loolu la bëgg a jeexale lépp lu aju ci mbirum jullee ki waajtaayam i'lam xamal yaqinan ci lu wóor ne kullu ruuxin gépp ruuw zaahiqatun aji dee la zaahiqatun mooy aji naax saay waaye mooy aji dee rek wa kullu nafsin bépp bakkanit zaahiqatun aji mos la lil mamaati ñeel dee mu ne bul fàtte ni kat ku mos dund rek ci dogal bu yàlla da nga mos dee kon nag mat nay xalaat di ko waajal ndaxum bañ laa bett alal maridi war na aji tawat ja an yettoo ba mu tuub haajilan fi saasay saasa wa xaasilan tey aji raxas kula daayin jëpp jàngoro fil fu aad yoj nekk na ca xol ba wa an yarudda ak mu delloo alxas ba daan gëjël wa tibaaxata ak tooñaange ga wa yaqdiya te muy fay at day na bor ba awil wadaaxata wala ndénkaan la mu ne nag tawat sax taxuta faatu ndax ko àppam ak siwut du faatu waaye nag tawat daa bokk ci yi nga xam ne daana jiitu faatu faatu topp ca kon saa yoo tawatee rek na nga daal di yeesal sa tuub tuub tuub gu sell dellu ci sa boroom ñaan ko mu jéggal la ndax addis ba nee na attaibu min azambi kaman laa zamba la ku tuub bàkkaar tuub gu sell day mel ne mësta jaar ci bàkkaar kon farlu ci tuub tuub mel noonu saa yoo yëgee tawat ci sa bopp te nag lépp loo xam ne yàlla bëgg ko ci xolub doomi aadama nit ki rëy wala ñàkk yéene kenn la ko yàlla defal ci xéewal wala jëf te yàlla taxut maanaam ñàkk yéene yéene ju sell ci ay jëf wala bëgg ak cant ak tagg la bëgg kilifteef mbaa yi demee noonu daal lépp lu mu xam ci lu yàlla bëggul ci xol rek mu jéem koo raxas ba mu set génne xolam ci àdduna ak li ci biiram lu masa tooñ nag doomi aadama yi mu taxaw temm ci delloo leen ko ku nangu woon alalam ci doole mbaa ci neneen mu fexe rek ba delloo ko alal ja bu fekkee ne kookaa ngay dund da ko koy delloo te jéggalu ko bu fekkee ne kooka génn na àdduna mu jox ko ña koy doon bu fekkee ña koy doon gisu leen mu saraxeel ko ko bu dee beneen tooñaange itam ni ki yàqub deram baa dara itam na fexe rek ba jéggalu ko mu wàcc ko bu dee bor bu mu siqoo nag kenn itam tamit lu mën a fay fa saasay saasa mu daal di koy fay su fekkee am lu mu ko fay waaye loolu daa aajowoo waajal ndax day suuf suñuy jaay mbaa benn matériel it moom lay bëgg a wax ci way wee naa day bind aw kayit wu leer a leer bind ci yooyu yëpp mooy wakaatiban tey aji bind wasiqatan aw kayit la day fa moom bimaa ci lépp loo xam ne lëxoo ñeel na ko min xaqin ci àq aw alayhi wala mu war ko day seet ñaar ñu maandu mu binduloo leen moom ci boppam li mu amee ci bor ak lañ ko ameel ci ay bor ndax lañ ko ameel ci bor bu mu jàpp na rek man maa ngi faatu lañ ma ameel amul solo war naa taxaw ñi nga xam ñoo koy doon ci gannaawam ba lépp luñ ko ameeloon rek ñu mën caa jot ndax seen àq ju leen yàlla jox ñoom way doon ni mu bañ a fàtte itam bu amee yu ñu ko dénkoon mu daal koy delloo mbaa boog mu leeral ne lii kat ay ndénkaane la na bañ a fàtte itam bu fekkee amoon na digganteem ak boroomam ay àq yu ko ca war ni ki xeeti asaka yoo xam ne ko yéexe woon mbaa xeeti kafaara wala xeeti nisar yoo xam ne moo ko warlu woon yooyu yëpp mu bind ko wax leen ñu génne ko ñoom ñay doon ndax bu ca farluwul rekk mën nañ ko bañ a xam mbaa ñu xam ko ba noppi sàggan ca bañ koo génne ndegam yoon may na ko it ku def alalam ñetti xaaj benn xaaj bu mu sañcaa dénkaane bu mu fi jógee nàngam kon mën naa seet ndegam moom xam na ne amu ci bor mbaa lu koy gàllankoor mu wax ne bu mu fi jógee nañ ma defal nàngam nàngam mën naa seet yi nga xamee ni moom tuyaaba ji da koy fekk foofee nit ki sabablu ndox mu ñi mën di jëfandikoo ci béréb ak lépp loo xam ne rek njariñ lu yem ci doomi aadama yi ñu koy jariñoo tuyaaba ji di ko fekk foofa mën na caa jëmale ab dénkaaneem na moytoo dénkaane naa su ma fi bàyyikoo nañu fab sama alal sàngam saraxale ma ko niki defal ma ko nagu sarax mbaa tofale ma ko ak yu demee noonu na ko wóor ne kat xeeti saraxal ak yu demee noonu day aada rekk ju yàgg ci réew mi waaye lay sunna mooy ka faatule du tala toppatoo ay ñam dañuy sopp sax dëkkandoo yi ñoom toppatoo ay ñam indi fa kon nag bu mu ne su ma fi bàyyikoo waajal naa li ñu may saraxale ba noppi ak yu ko nuru nu mu nar a jëmali ci sarax ak yooyu rek na ko jëmali ci leneen lu am tuyaaba loo xam ne foofee mu jëm tuyaaba ja da ko fay fekk ci mbooleem xeeti jëf yu baax yi nga xam ne doomi aadama yi dañ ci mën a jariñu ca gannaawam lu aju ci wàllu saraxal moom na ko bàyyeeg ñiy dund rek ñiy dund ñoo ko aadawoo te li ci ëpp faaw daañu fexe ba jagal ko waaye ñoom itam nag dañuy moytu fab alal li ko faatu di ko def ca sarax sa lu may nag nga xam ne ña war a doon ñoom ñépp ay mag yi jëmm lañ ñu mën a wéeg seen bopp kon buñ juboo ci fab ca alal yi doona ja def ca sarax sa loola baax na waaye bu xasee am nag ay jigéen ak i gone yoo xam ne mënuñoo wéeg seen bopp kon duñu sañ a fab alali ki faatu di ko def ca sarax sa wa an yu diima ak muy saxal ak dikra tudd yàlla ga wa duhaa ak ñaan ga walhamda ak sant yàlla wa tahlila ak wax laa ilaha illallah wa sanaa ak tagg yàlla musalliyan mbir mu muy aji julli àla rasuli ci yonante ba al mustafa ba di bu ñu tànn mustaxfiran mbir muy aji sàkkoo jéggalu mimma ci lépp loo xam ne janaaxu tooñ na ko aw xafa wala mu fakkastalu ko fakkastalu mooy lu mu def loo xam ne teyu ko mbaa ñàkk xama taxoon moom yëg ci boppam ne mi ngi bëgg a génn àdduna nay bari la tudd yàlla niki alhamdulillah sant yàlla ak jéggulu ko astaghfirullah ak rabbi xfirli ak bari la julli ci yonante bi rawante na bari la wax laa ilaha illallah ndax mu mujj ci aw làmmiñam dañoo nett li ci addis ba ne koo xam ne lam mujj wax ci àdduna mooy laa ilaha illallah faaw àjjana lay dem kon nag bari nga wax laa ilaha illallah ak julli ci yonante bi moom lu mu ko baril rek na ko xeeb yaqra'u dana jàng duhaa dinnuuni ñaanuk borom jën wa arbaxiina ñeen fukki yoon war raada ak sóoratu raadi wal ixlaasa ak lixlaas ma yaasiina ànd ak yaasiin ba tey na jàng ñaanuk yunus ga mooy laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min alzalimin na ko jàng ñeen fukki yoon suratu raadi su ko mokkalee mbaa mu am talub man koo xool jàng na ko jàng xam ñu wax ne suratu raadi day yombal génnug rooga saaru lixlaas moom it na ko jàng waxoon nañ ca net lii ne ku tawat jàng saaru lixlaas muy xul huwallahu ahad yetti yoon bu faatoo ca tawat joojee kenn du ko laaj ci bàmmeel sóoratu yaasin it na koy bari la jàng ndax yaasin moom day bari ngëneel lool addis ba nee na yaasin qalbul quraan wa innaha shifaun min kulli daa ba tey am na fu nett leene yaasiin lima quri'at ay lima quri'at la maanaam yaasiin mooy xolu alquran teyit des na ko saafara jëpp jàngoro manees na ne sax lu tax nga jàng ko rek mu dal cee féete maanaam luy sëyte rek mën ngaa jàng yaasin ndax jublu ci yàlla defal la ca la ca gën yàlla defal la ko ca insha allah wa yuxsinu te muy rafetal azann njort la bi afwi rabbihi ci jéggaleg boroomam wala yuqannithu te bu ko naaguloo azimu zambihi ajrëyi bàkkaaram na fexe nag ba rafetal njortam ci yàlla boroomam lu bàkkaaram réeréy bu mu tax mu naagu yërmande defe ne yàlla du jéggale lu tol noona sun boroom moo ne laa tay asu min rawxillah bu leen naagu yërmande yàlla innahu laa yey asu min rawxillahi illa al qawmul kaafiruun ku weddi yàlla rek mooy naagu yërmandeem la gën a neex a déggati sax mooy qul yaa ibaadiya alladina asrafu ala anfusihim laa taqnatu min rahmatillah inna allaha yaxfiru dunuba jamia innahu huwa al gafuru rahim yéen sama jaam yi nga xam ne da ngeen a jéggi dayoo ci def lu ngeen warta def bu leen naagu sama yërmaande ndax man bàkkaar yépp lay jéggale kon nag bu yëgee ci boppam luy nuru ak naagu nay jàng laay yu mel noonu ndegam mën na koo jàng mbaa boog ña ko xam te gis ne moom mi ñaaw na njort ci ëllëgam ñi di ko wax rek luy tax mu rafet njort ci boroomam ndax la addis ba ne man sama jaam lam jort ci man rek ca laa koy fekk ana xinda zanni xabdi bi falyazunna bi macha na jort ci man daal lu ko soob waaye na ko waaye daal la mu jort ci man rek moom la fi fekk kon na rafetal njortam rek ci yërmande yàlla ak njéggalam wayam bax yi dana yell talqiinuhu ak saxam achahaadata seere sa li koy yàkkoona ngir na nekk alxatmu mujj ga bi saxaadati ci texe ku fa nekkoon nag xool kanamam mu mel ne ku soppiku jëbi di ñaq tegta la ci ne ak génnam àdduna soreetul ci waajtaay la toll dañoo bëgg ne yooyu jamono ku fa nekk nga di ko sax seeres ashhadu an laa ilaha illa allahu wa anna muhammadan rasulullah ndax hadis ba dane laqinu mawtaakum laa ilaha illa allah dee leen sax seen way faatu laa ilaha illa allah waaye nag nee nañu doo ko wax ne ko neel ashhadu an laa ilaha illa allah da ngay dend ak moom rek di wax laa ilaha illa allahu su ko waxee rek nag nga bàyyi ndax loolu mujj ci aw làmmiñam su fekkee waxoon nag waaye waxaat na jeneen wax ju bokk ci àdduna nga dellu baamuwaat laa ilaha illa allahu ji ndax mu dellu waxaat ko ndax mu mujj ci aw làmmiñam qabbilhu na nga ko jubale xibla ma ixdaadihi ànd ak xàjjiku ay bëtam wa xammidan te nga gëmmal bët ya wa shudda te nga takk lax yeyxi ñaari yaxi sikkimam bi rifxin ci ak ñëwante mooy ndànk-ndànk in qadaa ndeem faatu na ba noppi wada te nga teg thaqilan aji diis fawqa batnil mayiti ci kaw biiru ka faatu wala yenta nga nooyal al ahda ak cëriya min hu ci moom billati ci anam ga nga xam ne moo gën a rafet daa jublu billati hiya ahsan boo gisee ne moom mii kat màndargay faatu feeñ na ci moom ndax bët yi xàjjiku na danga koy jéema jëmale